diakarlo l'eau ak juge de ko ne li nga jëlee ci ay ndogal duñ ko respecter c'est ce genre de pratique lañ gis dans ce pays ces arts de pratique là ce genre de pratique suba ñom dañuy wacc malheureusement si on continue avec euh, continuité bu wax nonu ñom dañuy dem ba un moment donné ça retourne contre eux ils vont dire que lolu mosu fi am sénégalais da fay gawa faté bu ñu demee ci ay ay ay genre contentieux yu melni man je suis d'accord bu féké da ngeen di xéx ngeen xéx politiquement parce que lolu moy politique da ngeen di xéx politiquement maintenant juge bu démé ba joxé décision ngeen respecter décision bobu respecter les juges il faut pas respecter les juges qui sont à Dakar

ces clés là est ce que tu jii dit euh, bi au préalable respecté nañ autant que nous daal di un peu Ousmane Sonko par rapport à ces fiches est ce que nous avons lijjanti un candidat par rapport à li nga réellement. ouais mais ben, heureusement que c'est pas arrivé trop tard Bougan tel la gis les failles Bougan moo wax Bougan ah. Bougane wax ni que gis na ay erreurs ba mu signaler la DGE mu rectifier les erreurs. Elle l'ont reconnu. Ouais, mais loolu la Euh bu fekkee lolu mo am damay né bu fekkee lolu mo am encore une fois il a euh euh, euh liggéeyam di digérer liggéey bo xamanté du malheureusement on a vu des failles. liggéeyam amna ay failles. liggéeyam amna ay failles. moom muy gérer benen bo xamanté du voilà la réalité euh, euh. Yo ce liggéey clé yi nga joxé baxul, fichier yi fa nek baxul ñay taxaw di liggante ak kan mo wara bok kan mo warul bok di lo xamante dañ la ne du sa liggéey voilà l'incompétence bi mala doon wax demb fi mom il a marqué ses limites la fal dafa marqué ses limites ni que il n'est pas compétent dans ce domaine encore une fois je regrette bu féké lola def c'est son incompétence man jàpp jàppuma ni que bu féké il est compétent du bàyyi liggéeyam di def liggéey jàmbor bañuy gis ay failles ñu attention jeexagu la ah. ñu ngi comme continuer di signaler les failles les erreurs am na ñu la ne sax gis nañu ay fiches yoo xamante ne day am ay yeneen ay yeneen cases yu manqué. fu ñuy remplir doon mais benn case leen gis. loolaa la wax moom ci loo xamante ne liggéeyam la. Hmm. bu fekkee dañuy nekk ci ay état boo xam ñoom dañuy def tappale. Hmm. ba administration dugg ci tappale boobu y un problème. loo xamante ni sa liggéey la ñu ne la liggéey loolu munoo liggéey loolu ba ñu gis ay faay malgré ça nga bàyyi sa liggéey di def liggéey jàmbur ñi ñii di la wax ba sonn nii li ngay def nii du sa liggéey yow yemal ci sa liggéey mais yow bëggoo def sa liggéey ngay def liggéey jàmbur ba ñuy gis ay faay ci sa liggéey encore une fois man na jàpp man man dama bokk ci ñooy jàpp ni peut-être bu fekkee dañoo nekk ci état bu sérieux mom direction bobu dañ ko wara remplacer ñu andi fa kenen hmm. bu fekkee xam nga ñun en Afrique ndeysaan on n'a pas le sens. donc aujourd'hui son départ est euh, la philosophie wala la culture de la démission. donc aujourd'hui son départ bu fekkee ça ne va pas man damay démissionner parce que il y a des failles mun ñun amuñu culture bobu mais dañ la dañ ko wara relever de ses fonctions jël kenen teg ko fa parce que il n'est pas à la hauteur élection yi demagul fen déjà amna na loo lu melni direction générale des des des élections moo fi andi coow bo ba legui mom lañuy ñuy alors que élection bi dem demagul fen conseil constitutionnel ñewagul coow bi déjà Tambalina, na déjà ci mom ce qui veut dire que mom il n'est pas à la hauteur tout simplement que ça man il n'est pas à la hauteur il n'est pas à la hauteur dañ ko wara relever de ses fonctions jël kenen tek ko fa parce que élection ñëwagul déjà 4 mois coow bi commencé est-ce que dinañ fa egg voilà la réalité les gens se posent la question là est-ce que dinañu egg coow baa ngi nii ne cour tantôt bu ñu nee Ousmane Sonko nañ ko jox fichier suba bu xëyee ñu ne clé ISB yi ñuy joxe dafa am problème suba ban problème mooy ñëwaat est-ce que fichier électoral bi ba légui opposants yi gis nañ ko xam nañ lu fa nek donc il faut que de focus focus ci liggéeyam instant bi. voilà alors euh, Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko euh, jàpp procès en appel bi demain Inch'Allah, devant la cour suprême euh, concrètement euh, ak li nga xam juge de la cour suprême de Henri Sireba. Oui, mais la réalité est-ce que le dossier a été enrôlé parce que y a des choses qui xam été day est-ce que gis nga les avocats de Ousmane Sonko génnee ni que suba ñom dañuy dem à la cour suprême pour le dossier là. lolu ma jaaxal tax bu léegi amagul. mais loolu mooy la moo tax la il faut faire très attention. tax ba léegi amagul est-ce que le dossier là a été enrôlé est-ce que c'est pas une stratégie. mais ben côté ñom ñi ngi waaj. non attends. côté Ousmane Sonko moom gis nañu man jusqu'à la preuve. du mais ben côté mom ñi ngi waaj. man dama ko dama consulter ay sources yu bari ba léegi. Les ci ni que le dossier a été enrôlé. nañ ko wax ni mais il faut regarder les presses qui l'ont publié il faut regarder les gens qui parlent de ce dossier du 26 ni que c'est à court il faut regarder dans la toile même ñan wax affaire bobo. moi il faut faire très attention et chercher la bonne information. Hmm. Mais concrètement, il y a une journaliste, journaliste, attends, attends, attends, ce que concrètement, journaliste, il faut chercher, non, il faut, il faut chercher la bonne information parce que je ne crois <laughs> pas que ce là a été enrôlé. Mais, mais, mais concrètement, la Cour eh, Parce que les échos aussi, quand on est préparé à fond, mais euh, sûrement. Euh, Diofi Diengo daal tenir inshallah allah demain euh, si tout se passe euh, à merveille exactement lan nga si xel concrètement si li nga xam ne mu juge bi bis bu amé si toutefois ñu dal di tenir boobu de li nga xam ne. waaye mais si si toutefois bu amé c'est benen juge jugement comme jugement yépp la. Hmm. jugement si mais lan nga si xaar concrètement. lan moo lan la si xaar comme la parce que da nga yàgg ne millions 200 millions c'est la première fois ñu koy daan nit. ci diffamation tout simplement li may xaar. ne que yoon wax def liggéeyam. Hmm il faut dire la loi sénégalais yi loolu la ñuy bëgg c'est-à-dire que du ñu sonn di defar constitution. ñuy sonn di defar ay loi ay borom xam-xam ci concertation ba ñuy former ay loi ñu mëna tax Sénégal nek réew nek un état mais lu ñuy juger mengoul ak état. mais est-ce qu'on peut attendre euh à une il faut que ñu juger yoon ñu andi article yoyu nous avons article articles article bi mo wax li article bi est-ce qu'on peut attendre à une décision définitive. mané ñaar yi ñoo am juge juge. Hmm. soit dalay jox wala a pas un match nul comme dans le football de mes cours suprême voilà cour de cassation voilà cours d'appel il faut attendre à deux choses soit. camp bi am dëgg wala beneen camp bi ñu ne ko ah loolu de dañ koy kase loolu amul ci diffamation mm. diffamation musul egg ci som bi loolu kese moo am te man maa ngi xaar ci justice mu wax liggéey mu def liggéeyam mu wax laa loi man waxuma ni kii mooy mooy gañe wala Ousmane Sonko day day am dëgg ci Mame Mbaye Niang wala Mame day am dëgg ci Ousmane dama ne na yoon def liggéeyam ba pare il faut dire la loi bu que nit dafa jalkati loi bi il faut il faut lui remettre il faut lui faire revenir à la raison d'accord? diffamation musul am Zar Sombini, bii musul am on demande le franc symbolique li ngay wax ni du diffamation bu fekkee cour suprême ou wala cour d'appel dafa japp ni peut-être ni que dañoo euh, euh, le fait que ñu trompé ci ay logo c'est pas c'est pas une diffamation IGF e, bu fekke ñom dañoo japp ni que peut-être lolu waro daan nit ci lu mel nonu nañ ko wax. alors nañ ko appliquer euh, bu fekke tamit dañoo japp ni que lolu tamit am ok alors Mame Mbaye euh, aussi euh, ñi xamant que ni peut-être à l'issue de cela saisine bi na xam ne tam bëggoon na ko def les sept banques d'Ousmane Sonko est-ce que lolu itam waruñu daal loolu mën a yóbbu d'autres li na xam que moo di tension. loolu manipulation la lolu amul aucune banque au monde il faut écouter bu baax j'ai fait fait un stage dans une banque la man. Hmm. dama def stage. dans hmm. la banque pour ne pas faire la publicité de cette banque J'ai un stage. lu 6 hmm. mois. service bi ma faut que la tout presque allez-y allez-y maintenant pour te dire que en connaissance tu lu ndaw li ma jot xam ci banque. aucune banque au monde ne va accepter un client un privé mu ñëw taxaw ne ko il y a quelqu'un qui a des comptes ici dama bëgg nga dépouiller ses comptes nga jox ma jamais au monde. Hmm. Bobo banque amagul en tout cas créé guñu banque bobo. la banque protège ses clients loolu la ñu xam ci banque maintenant bu fekkee Mame Mbaye dafa dem di saisir ay 7 banques supposons que Ousmane kon ah, Ousmane Sonko kon amna khalis 7 banques. est-ce que le président de la République même a 7 banques bo xamanté moom le confier ses son argent. mota tax la manipulation le non écoutez bonne nit mo am au Sénégal bo xamanté dafa 7 banques nga wax de 7 7 banques Ousmane Sonko kon amna khalis donc Ousmane Sonko c' est pas c'est pas l'opposant dont on parle Vous faites que Mbaye le loolu la bëgg xamal euh, sénégalais ni que Ousmane Sonko dafa am xaalis ci sept banques <laughs> non arrêtez quand même bàyyi leen bàyyi leen di fooyee seen bopp Mame Mbaye Niang bu soolay xaalis suñu xaalis lañ koy fay en tant que ministre du tourisme L'argent argent du contribuable lañ koy fay impôt nit ñi. ñi ñi dang dang yi di jaay ci marché yi di jaay ci ci taabal yi seen impôts yi jaaykat ndëkk bi sax bu ñëwee ñu ko dagal ay TVA ay ticket yu deux cent loolu la ñuy relever di ko fay on a pas de un mambay ñaa hmm. di taxaw di gële di naan ay xaalis nit la soxla ñi ñi ñoo soxla xaalisam mais moom warul soxla xaalis ñi ñi parce que ñun ñooy fay salaire les sénégalais ñoo koy fay salaire il faut qu'ils respectent les Sénégalais ñoo xamante ils n'ont pas les trois repas quotidiens il faut que mu respecte ñooñu hmm. ñooñu ñoo war a yuuxu ci état c'est pas Mame Mbaye Niang moo war a yuuxu